sànq ci ci ci cadre de vie bi euh, xam nga tamit sa vision lu mu baax baax baax euh, dina baax euh, askan bi nga xam ne ñoom ñoo la fal am ci yow yaakaar nga def mbir yi de manière inclusive ba ñoom ñu mën a partager vision boobu mën mën laa continuer porte xam nga je prends Mikelam tëj na il avait un espace contrat bi jeex renouvelé woo ko waa ji mujjee dem yoonam ce sont des investissements la la la la la def il a décidé d'abandonner bon sa ça l'engage mais ñu jël le cas de Kajoor Glace qui a défrayé la la la chronique fii ba Ndakaaru dañ dégg coowal Kajoor Glace bi te di tax coow li attiré sama attention ba ma wut contactu waa ji parce que dama gis ñu bari ay Ceesuwaay yu bari bari bari di wax ci vas ma diir peut-être que c'est une campagne mais gis naa nit ñi di wax di kañ projet bi bi mu leen amal xam nga tamit l'état continuité la nit bu ñëwee mu fekk un espace espace bi nekk 1000 mètres carrés mu waxtaan ak mairie mairie bi ne ko da ngay aménager espace bi yëpp nga privi nga privatiser 200 mètres lu deux 200 mètres carré espace bi mu aménager ko waa Thiès di fréquenter espace bi di fa toog leneen li mu am ci activité une activité novatrice boo xam ne neex na waa Thiès. ak lu mu métti métti métti kooku boo demee ba yow nga soxla place bi mais am na noo ko noo ko noo ko war a defee est-ce que ni nga doxalee ci situation Mickey Land ak Kajoor Glace bi est-ce que ça procède d'une gouvernance inclusive lan nga tuddee gouvernance inclusive Mickey Land bi da nga xamul Mickey Land fa mu nekk xamoo la fa nekkoon démb waaye kon doo waxee nii ngay waxee foofu jardin public la woon may mun jàkkaarloo directement ak mairie bi nga amul benn ville bu amul jardin public benn ville bu amul espace vert benn ville bu amul espace de vie ñun bi ñuy nekk xale foofu jet moo fa newoon 4 avril dañ ko daan ubbi mu nekk un jardin public ñu bëgg a réhabiliter jardin public bu nekkoon foofu réglé nañ ko évidemment coow amoon na ci ka fa nekkoon yóbbu woon nañu justice bi ñu demee Cour suprême Cour suprême man la dëggal sama décision actuellement ñi ngi entreprendre ay travaux pour réhabiliter jardin public ville bu toll ni ville bu de Thiès soxna may mun a day am espace de vie day am espace vert Kajoor Glace bi beneen autre problème la ni nga ko waxee demeewul noonu bëgg mu ci ñëwaat xam nga tax bëgg ci ñëwaat waxtaan nañ ba am nañu lu ñu tënk ak ñoom. amu leen loo leen tënk de nu tudd euh, nu tudd ku amul yaay nàmp maam la waaye Kajoor Glace bi moom ni nga ciy doxalee moom jaay doole dëggantaan nga ci def. yàlla na ma yàlla dimbali ba lu tuut li ñu ma dénk ak Thiès lu pouvoir lu dara pour ma nekk un serviteur de Thiès boobu bu ma ko utiliser ngir jaay doole. yàlla na ma ci yàlla dimbali bi ñu jëlee mairie ma xool contrat bi dama woo ki jiite Kajoor Glace man ne ko gis naa contrat bi dinañ la bàyyi nga continuer sa activité mais bu contrat bi jeexee duñu ko renouveler parce que promenade bi euh, dafa am solo ci Thiès mën nga jaay glace mën na am ay glacier mais ni nga occuper promenade bi baaxul loolu rek lañ ko wax pour jim ko toxal wane ouverture pour jàppale ko pour mu déplacer wu parce que dañuy aménager promenade bi loolu donc. mais mais mais mais Babacar euh, xëy na danga nga mosul nekk ci secteur entrepreneuriat xëy na moo tax bàyyiwoo xel ngaañ bi ngay gaañ nit ki nga xam ne dafa ñëw mu yaakaar ci béréb mu investir nga xëy rek nga ne ko bu contrat bi jeexee duñu ko. duñu ko renouveler mais y a une procédure y un processus bu fekkee ne espace bi mu occupé ci promenade bi dafa bari mais mënoon nga ko restreindre puusaat ko mu mu mu réaménagé wu ñun loolu la ñu wax ci même espace bi non non mais pas nga ne nit ki da ngay da ngay da ngay jóg fii espace promenade bi non espace su promenade des Thiessois bi dañ ko wax promenade bi ci boppam dañ koy aménagé ci espace bi li mu jël dafa bëri proposé nañ ko mu déplacé wu. et pas mu déplacé wu mu wàññi. non dafa surface bi mu eh, occupé de manière privée. man sama vision mooy ñu déplacé ko may. waaw mais sauf que cette vision ça doit prendre en compte les intérêts de cet ah, investisseur là. pourtant jël naa ko de jël naa ko de recevoir naa ko. plusieurs parce que boo konee nee mu déplacé wu. moi j'apprends que pour déplacer les machines ña ko fa installé woon muy des italiens pour ne pas perdre la garantie war na woowaat ñooñu bu déplacé woo balaa. Euh, dina perte pas de portam balaa mbir mi di di di relancer waat. temps bi muy toog mais nañ ay quelques mois. ah xam nga contrat bi jeex na depuis euh, donc weer wala passé moo tax ñu may ko ay mois. xam nga xeexuñu ko pour jàppale ko mu am le temps. mën a déplacer juróom benn pour un projet. Ah, bien installé cette polémique là. et et pour lequel beaucoup d'investissements ont été euh, consentis quand même. Euh, may mën a sur ces. yow loolu glacier nekk dans un espace de promenade lan la la jëriñ. ku promené wu koy ñëw toog naan glace. non non ñu lekk glace d'autant plus que les Thiessois apprécient ce projet là. certains Thiessois. des Thiessois beaucoup de Thiessois apprécient ce projet. sa Thiessois. je connais bien ma ville. réalité réseaux sociaux ak coow yi c'est pas ça Thiès bëgguma revenir ci loolu parce que waxtaan nañ ay kilifa dugg nañ ci ba am na lu ñu tënk di ubbiwaat polémique boobu. amul njëriñ non c'est pas réglé. am na loo leen teg. mais amaan na loolu gënalu ko. waaw may mun a franchement nañ avancé ci leneen. non ñu avancé Babacar. xam nga loolu aussi nañ avancé ci leneen non mënuñu am lu tax mënuñu avancé. loolu aussi c'est une façon de gérer xam nga yéen. da ngeen ne da ngeen ñëw dangeen ne Macky Sall. da ngeen reproche boo leen def Macky Sall ngeen ne Macky Sall lu baax ci réew mi bu jox ko ay tubaab. lu baax ci réew mu jox ko waa bitim réew ngeen ne nañu encourager la préférence nationale une ville comme Thiès un Thiessois ñëw investir ak keneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp yow boo ñëwee en tant que maire war nga jël en compte les intérêts nga sekk ñëw waxtaan boo xam ne di ngeen trouver un bon terrain d'entente parce que may nit ki six six mois may mun a taxul da wax loo xam ni maîtriser woo ko maîtriser woo environnement bi nga jël déglu ma defal ndànk ma defal ndànk xam man bëgguma ñëwaat ci loo xam dama ko dépasser parce que wax na recevoir naa ko ay kilifa yu mag ñëw nañ am na lu ñu ñaan am na lu ñu tënk ñi encadré ko jàppale ko ba mu mën a déplacé wu. faneen foo xamante ne mooy xanaa am yeneen barab yu ñu ko proposé. et barab boobu daf ko war a moom alors que il a déjà aménagé l'espace après dafa war a demaat ci beneen barab. oui war a aménagé waat. bien sûr est gis nga manque à gagner bi. bien sûr. ah bien sûr xam naa bu baax li may def. et de travail là. di nga ko accompagner mu fay ses salaires. non di nga ko accompagner mu réinstallé wu. nekkuma ci loolu xam nga man si lu ma nekk. je les intérêts d'une ville may mun a dañ ma fal ma gérer intérêt ville bi par rapport au génération futures par rapport ak Ceesu suba bu ñu ñëwee espace public yi nan lañ koy fekk est-ce que dañuy bàyyi espace public yi ay nit toog fa rek parce que ay Cees waa lañ parce que ay investisseurs lañ parce que seen alal nga fa. wala dañu war a gérer espace public yi par rapport a ceesu tey ceesu ëllëg man ci intérêt général laa taxaw ci taxaw intérêt général boobu képp ku ñu mën a jàppale duñ la jaay doole mais dinañu wax ak yow ci njekk ak teraanga liñ la mën a jàppale ñu jàppale da leen ko rembourser l' argent qu'il a investi pour aménager la la place là mu mën a jël xaalis boobu def ko un départ. mën a dem mën a dem nga ni pourquoi ma koy. pourquoi doo leen ko doo leen ko rembourser l' argent qu'il a investi pour aménager cette place publique de mille de plus de mille mètres carrés. je pense que ni vous êtes devenue une avocate je non damay laaj rek pourquoi mënu leen ko jàppale. est-ce que amul ay euh, mécanismes. Euh, euh, les vos fonds sociaux là. qui vous permettent ngeen ngeen accompagner ko. Maïmouna s'il te plaît nañu avancer. waaw ouais, mais vous êtes maire. non franchement et, ce monsieur là non, mais, et ses employés non, ce ce sont que, vos concitoyens mais parce que xam nga lu tax parce que fi mu ma jëmee mooy ñu ñëw ci loo xam ne passé nañ ko. passé wu leen ko de. mais li am solo mooy li ma tënk ak moom li ma tënk ak moom ñu may ko six mois le temps mu defar ay machine am ñu proposé ko yeneen loolu moo am solo sa a été une réunion constructive bëgguma ñëwaat fii di xool li fa muy installé wu est-ce que c'est attractif. oh may mën a franchement li dépendre ci ñun mooy ñun ñu def ko ay proposition moom mooy apprécier ndax baax na wala baaxul wala arrangé na ko mais li am solo ba am solo ak Abdoulaye Mbow depuis le début ñoom wax nañ ko li mën a nekk ca loo xamante du tricherie wala pour jaar na le li mën a nekk mooy espace yi dañ leen di dañ leen di récupérer au niveau de Thiès espace public yi nga xam ne ci ville bi moo ko moom dañ leen di récupérer ñoom nag dinañ leen jàppale encadrer leen pour ñu toxu tuuti rek déplacé wu dégager espace yi loolu dong la may mun a ñu dégager espace yi ñu aménager ko jaay glacier yi jafewul ci aménagement yi ñuy def ñoom mën nañoo bokk sax ci projet yi parce que dina am place yoo xam fii yi dina fa xaj loolu kese la mais dal ci nit muy Kajoor Glace muy Mikelaan yàlla xam nañu taxuñu jóg mais ville nag da ngay am vision ci boppam bu amee ñu am position seen ni ñoom du ñu jéem dara du ñu def dara wala parce que dossier coow dafa bëri da ngay waaf bu fekkee am na ñoo am loolu seen option la man du sama option man sama option mooy engager ay travaux pour transformer le visage public de Thiès ca loolu ñi ngi ci waa Thiès ñi ngi may dégg xam nañ ñi ngi ci xam nañ ko bu baax a baax a baax nañu yàlla may dund ak wér. mais parmi les reproches qu'ils vous font nee nañ da nga da am une posture dictatoriale boo décider dara kenn mënu la fléchir loo alors que yow da nga am un mandat public vous agissez euh, au nom de population qui vous ont élu. du ma sori naa sax nekk dictateur da di dëkk bi dafa am ñoo xamante ne dañuy yaakaar ni parce que homme politique nga manipuler opinion wala saagale ci ay réseaux sociaux. wala manipuler ay ay nit ñu def ay conférence de presse dina tax nga reculer su ma doon reculer reculer ci dossier université Thiès moo gën a complexe moo gën a metti syndicat yooyu ñoo ëpp doole université moo ëpp doole ci samay collègues lañ ca damaa jàkkaarloo ak ñoom les syndicats réunis def conférence de presse génn seeni communiqué attaqué ma ca damaa jàkkaarloo ak ñoom may may may mun a quand il s'agit des intérêts de Thiès nag awma ci dara lu ma ciy ragal dinaa nangu ñu saaga ma dinaa nangu ñu xalab ma dinaa nangu ñu dëkkale ma fu ma dëkkul waaye aw la yëwén bu demee ba pënd bi wuri fan la intérêt Thiès nekk ku ñëw intérêt Thiès nekk terrain ba di nga ma fa fekk ma toog loolu rek